gën a fës ci bopp xibaar yi dañu koy dooree ak grève yi mareyeurs yi amaloon àllarba bi wees ñu doon ñaxtu ci jafe-jafe yu ñuy jànkonteel ci wàllu taxe bu bees bi ci li nga xamante ne nii mooy charge à l'essieu ñeel camions yi ak yenn tracasserie askan bu yeewoo fële ci cité Mounassar ñu gën koo xamee tool ba ci njàqare la ñuy dund ginnaaw bu ñu leen toxalee foofu muy ci jëm ci projet des travaux d'assainissement et de restructuration urbaine lu ko dalé yarax ba mbaw buñu joggé fofu wax ci walum occupation anarchique yu ñu nemmeeku ci tali yarax yi lu ko waral moy ñenn borom auto ñi garé ci kaw tali bi ñuy dem bay joxoñ baxam tuuma garage mécanicien ci walum tagat yaram dinañ ci and ak Khadim fay tollu way yu liggéey yu stade municipal bu and muy terrain mobile mareyeur yi di yeewoo yaraax desuñu woon ginnaw benn yoon ci géréw yi seen naataango yi doon amal alarba bi ñu ñom nak doon ñaawlu pesage yi ak di durée validité euh, carte professionnelle francs euh, chaque année bon euh, c'est renouvelable chaque année bo koku commerçant dépense que francs la deux ans trois ans carte professionnelle pour 30 000 francs et renouvelable chaque année. Bon, aussi, nous, euh, nous menaçons un petit pont bascule. Pont bascule, il y a, y a une autoglace, beaucoup de euh, bon, il y a 30 000 francs, nous payons ça. Il y a 150 000 ou 200 000. Il y a presque 20 000. la même chose. Il y a un pont bascule. Ben, rang bi day sori camion yi nga xam ne yoruñu jën yoruñu dara ñoñu nga bëgg top seen ginaaw xam nga et puis euh, lolu day metti ci jeun parce que jeun medd la xam nga day yàqu et puis euh, bu ñu la lo mat mat matul léegi dañ lay bëgg def lo tout acier euh, joutal sa auto peese acier kanam bi koku par force day up par force day up voilà c'est ça ginnaaw waxtaan ak tànku jàmm bi ni ministre Omar yu mag Alioune Ndoye amal Nous, di union nationale des maraîchers du Sénégal nous nañu seen grève ndax revendication amna safara saafara pont bascule yi ndax juróomi tonne bu leen poids total. gaare sa auto fu la neex nekk na faral di si ci Nous commune bel lu mel dina fi bari nous lu sonal askan wi ndax rôle, yum leen di jural ci dem bi vraiment nous sommes sonal fii quoi Nous ñuy garer fini. franchement parler Papa, bi c'est bon quoi mais nit nous nañu respecté nu ñuy garer seen oto yi quoi franchement loolu rek c'est suñu problème quoi bu ñu sañoon daal oto yi bu ñu ñëw garer. ñu gaaree Nous, jéem ni ñu xam ni dans. gaaree daal waaw ñu organiser wu aussi quoi. à chaque fois quoi mënuñ laa expliquer quoi nit moi, mooy xam lu mu war a def waaw boo indee sa oto nga xam ni koy nga organiser même boo amee sax soxla bu ndaw nii quoi nga dugg ci marché bi di jënd nga xam ni nga koy gaaree quoi pour manam bu keneen ñëwee tamit mu continuer ainsi de suite ainsi de suite noonu lay demee quoi souvent quoi. garage bu oto di gaare fii day créer étroitesse créer insécurité créer même pagaille même fan yi paase rek am na ay euh, oto yoo xam ne kon bi lañ dëkk yu paan yu paan day paan bu pare ñu ñëw park ko fi bàyyi. ñun nag commencé na si conséquence ba waxtaan ak ñoom dialogante ñoom di concerté ñoom ba ñuy commencé dégager oto yi fii daal bëggoon nañu daal euh, municipalité bi ak euh, administration préfecture ah di ñu dimbale ndax ngir am doole pour am doole doole pour mën a dégager oto yi fii jàmm ak salaam rek. ginnaaw ba ñenn ci askan wi di sàkku ci mairie bi ab wàllu ci bile jafe-jafe isa Gueye di secrétaire municipal bu mairie de Hann di ci andi ay leeral boole ci di joxoñ baaraam lii di garage yu mécanicien yi waaye ñoom ñee ànduñu ci. alors oto yi di gaare ci tali bi di gaare n'importe où lan moo ko andi lu ci ëpp garage mécanicien particulièrement té loolu dafa jaadul xam nga bo né yow man doomu dëkk bi la mais da ngay défar dëkk bi mais garé fu né dem rek ben accident amna fi bo boo liko waral moy yoyu les gens se garent n'importe où n'importe comment ko ci sabu mëna ne da nga singali on a eu un problème comme ça n'est-ce pas hier ñu singali ñu kenn mais dafa am lo xam dafa jaadul on a 30 sabots mais li ñuy li li li ñu war nit ñi war a comprendre Hann Bel-Air mënul nuroog jëppal Derklé mënul nuroog Sicap Fille, tu as le port, tu as les industries. C'est entre 1200 et 1800 camions chaque jour yu jóge ci port ak industrie yooyu di jaar ci route bi est-ce que nous na nuroog waa jëppal ak waa feneen mënta ne c'est pas possible par contre il faut ñu organiser loolu te loolu il faut état jàppale ñu ci. oto yaa ngi dugg ci biir dëkk bi ay camion ay car njaga njaay ak ay taxi yépp dañuy jaxasoo ak population bi léegi pour mettre sa euh, auto en sécurité da nga naan xaaral ma ko ci boru atelier mécanicien garé ko fa. mécanicien sax dañuy am problème pour liggéey mais ñoom waa population bi ñoom moom oto yi mécanicien yi moomuñu oto yi ñun dañuy ñaan yàlla oto bu ñu dépanné mu dem ñu am ci luñ ciy am yóbbu suñu kër mais pas autant di fi gaaree oto mécanicien yi bu ñu moomoon oto yi yëpp riche nañ moomuñu leen vraiment. waa koñ bi ñëpp ngi ñëpp ngi am problème ñëpp ñu am kenn aggalul sa liggéey. cité bi ci boppam ba mu daj amul benn lumière dafay lëndam guddi gi. daanaka loolee mooy kàddu mbooleem ñi yeewoo ci cité Muna Sarr te ñu gën koo xam ci tool ba ci ay jafé jafé yu ñeel walum assainissement éclairage public ak xaliss bi ñu leen déssel ci projet travaux assainissement ak restructuration urbaine tambalé fi ci japp mbaw yo yaag ñu bëgg ray ben parce que fi dekk yo la yaag ñu bëgg ray li ñu waxanté won ak ñun defuñu ci dara sa parce que fi ba léegi ba fi may wax ak yow auto yaang fi jaar ay garaway poussière bi di ñu ray sunu foos yi chaque 3 mois

gars yi ba ñuy tabax dañoo yaakaaroon ne presque avant kër yi di pare canalisation bi dina mën a démarrer mais malheureusement canalisation yi ba léegi démarré gul ñu ngi koy xaar nag xam naa ne yaa xamte nañ ko trop nag quoi mais boobu ba léegi ñu ngi déglu gars yi affaire yooyu noonu te tamit fii problème bu gars yi amaat tamit mooy euh, mbirum reliquat yi gars yi tamit gars yi bëri ñu ngi ñaxtu ne presque euh, joxe ñu leen seen reliquat. man mom bon joxon nañ ma sama bos. ñu nak wax deug yalla fa ñu nekkon xatna na fi ñu ñu ëndeet tane na way mitina parce que ay jabot lañu auto yi dañuy daw te duñu tegg seen tànk premier défaut deuxièmement ba sun regard yi mi ngi ni dañuy yenu Pulida ba geej plus de ay presque 1 demi kilomètre nga bëgg ko tour guddi ko yoni bu guddé sa doom mën la duma dem ndax lamp yi tàkkul oto yi bu guddé dañ koy gaari sa buntu kër surtout conteneur yi nak ba do gis fo jaar xale yu jigéen yu bon yi foofu la ñuy fanaan te mënoo ci dara kon nag dañoo bëgg daal nun léegi nu dimbali nu te yàlla rek tax bu ñu mënee taala suñu làmp yi ubbil ñu sax sa rigor yi bu ñu ubbil kanaal yi sax ñu taalal ñu làmp yi bokk. mu nekk ab projet bu waa Union européenne financé ànd ci ak nguur bu Sénégal ngir yokk cadre de vie ak yombal dem bi ak dëkk bi fii ci village bi. mu nekk lu ñenn ci askan wi di lu ba noppi di sàkku ndimbal ngir mën a jot ci seen reliquat yi. affaire baax na mais xaalis bi moo moo néew. xay moom moo néew su ne suñu xaay lañu jël di ko defat lamp yi tàkkul assainissement bi doxagul chaque jour dañuy viré loolu rek la amul benn problème mais su moom baax na moom waaw. xaalis bi ñu jox pour suñu kër yi satisfaire ñu kenn koo ci gis këram commencement rek la mais mënoo eggali ba pare reliquats yi nga xamante ne moom la ñu waxante woon ak ñun toj loo ñu tibbaloo ñu ay garawaay lépp def nañ ko atu yàllaa ngi nii suñu kër yi parewul ba léegi suñu reliquat kenn joxuñu ko te loolu jaaduwul. waaw te kenn ku ci nekk dañ laa jëlee ci koñ boo xamante sa lépp nga fa woon ñu indi ñu fii ñuy ñaan ak ndimbal nañu ñu dimbali jox ñu sunuy reliquat ñu mën a defar sunuy kër wala ñu génneel ñu sunuy kayitu kër ñu mën a defar sunu kër dëkk ginnaaw tuuma bu ñu teg ci seen kaw ndodd ñii di waa fondation droit à la ville te ñu yor projet bi àddu nañu ci mbir mi ba noppi di si indi ay leeral tool ba dañ fay def assainissement indi fa nit ñi dëkk ba ñuy tabax seeni kër dañ leen waxoon ni ngeen def ay fosse bari na sax ñu bari ci tool boobu tabax seen kër man mi maa leen defar plan boo xam ne fayeeku ma lañ dara pour accompagner leen techniquement ñu defar foos mais dañu nekk ci liggéey pareeguñu assainissement du question da ngay suul ay tuyaux rek kula def regard dafa am station de pompage ñett ñuy defar yaraax benn mi ngi nekk ci mbeddu centre culturel boo prolonger ba géej beneen bi mi ngi nekk ci mbeddu CM bi boo ko prolongé beneen bi ma nga ca yu ñu koy defar te pareegul ndox bi fu paree fu mu jëm station bu Cambérène la jëm parce que guñu ñu commencé daf ci ndox mu bon mi xam du dem non seulement day yàq réseau bi mais ça risque de retourner chez eux donc on avait tout prévu ñu leen daf leen force parce que kuy tabax da ngay def force ñu dund nañ daan dundee parce que bu nañ daan dund sax moo gënoon a metti mais léegi am nañu force yoo xam ne defar nañ ko mu mën a jël assainissement bi pareegul te tey jii boo tijjee regard boo tijji da ngay fekk mu fees dell ak ndox mu bon te loolu population ñoo koy def te pourtant tout temps on les sensibilise changement de comportement pour ñu bañ a yàq réseau bi mais dañ koy toj entreprise bi ñëw di defaraat ba mu nar indi problème entreprise na ni population bu tojati moom du ñëw di ko defaraat parce que xaalisam moo cee ñàkk ñun projet bi li ñu séq ak population bi mooy ñu def éclairage public boo xoolee zone de recasement bi am na ay lampe mbedd yi ñu aménagé yëpp am na ay lampe mais ñun foofu lañ yem bu ñu defee éclairage public bi la ville de Dakar moo ko war a abonné en son nom ça fait plus d'un an les may ni bagn paré bind nañu maire bu yara mu bind la ville de Dakar pour ñu jël en charge éclairage public parce que ku ne xam na éclairage public maire yi moo ko jël en charge ñu liñ ñu projet bi moy dafaral len dafar nañ ay lampe, zone de recasement bi bo fa demee do fa gis fil guy traversé tout est enterré le réseau éclairage public bi dañ ko enterré Sonatel bi dañ ko enterré tout dañ ko enterré pour mu nekk dëkkuwaay bo xam dafa moderne parce que dañu aan mu may banlieue bi gën a jege Dakar donc lu ñu fa war a def rek dafa war a nekk loo xam ne dafa moderne ci misaal bu ñu la war a fay un million kenn du ñëw jox la un million non d'un seul coup parce que l'expérience a montré que ni yenn projets yi da ñëw jox ku mel ni Sow un million Sow dem takke ko jabar wala mu def ca leneen du liggéey këram mu tardeel projet bi ñu ne noonu duñ def loolu dañuy ñëw ni la un million la waaye un million bi dañ koy def ñetti tranche ñetti pàcc benn bu njëkk bi dañ lay jox cinquante pour cent benen bu mujj bi ñu wax la 40 mais nag ñu téé ci benn retenu la garantie pour 10 ni la bo libéré en prise bi ñu jox la sa 10 bind ko ci kayit nga signé ko administrateur fondation droit à la vie signé ko le sous-préfet bi représenté état ci zone bi signé ko donc bép ayant droit bu ñew signé xam nga lool bala ngay signé d'ailleurs sax dañ na la boo mënta lire andal ak sa doom wala sa mbokk mu mën lire bo ñewé ñu jox la devis bi ni la 1 million la nga ah man de lire man day mool laa wala man mënu xaw ma ci dara dañ naan la devis baa ngi nii demal nga wuti sa mbokk moo xam ne ingénieur la wala technicien la wala koo xam ne xam na ci dara mu xoolal la waaye au moment où je te parle on a touché presque deux cent quatre-vingt-dix maisons ci ànd amul kenn ko fi mu musu ñëw yeey ñu ñu wax ci wàllum tàggat yaram doore ko ak CAN Cameroun 2021 bi waroon am juin juillet xëcc nañ ko ba 9 janvier jàpp 6 février njiitu camerounais yi ak waa CAF juboo nañ ci boobule changement àllarba fukki fan ak juróom ci weeru janvier ca Yaoundé li waral boobule changement nag mooy moytu nawet bi ñu jàpp ne sax ndogal boobu mën na bañ a yem ci CAN Cameroun 2021 bi kese bo sagganul dina laal CAN Côte d'Ivoire 2023 ak CAN Guinée 2025 lu ni mel meuna indi ay jafé jafé club européen yi ak joueur africain ya fay jouer am di Moustapha Faye football kat ci Sénégal di ci joxé xalaatam tey bo xoolee tey Ajax bi fi nekkoon dal di def nga xamné football africain c'est problème bi ñu am mooy football africain surtout les joueurs africains les professionnels ñi ngi don am problème problème ak seen club muy pression bi ñu doon am ci seen club bañoon nañ ba yenn grand club yi daawuñu jël jour loo ay ay saa jot muy coupe d'Afrique maanaam équipe professionnelle yëpp daan nañu kaas ci wax ne lii demoon ba bañoon a recruter africain africain sax moo leen amoon na ay charge yu mel ne ay Lyon ak ñoom seen bëggatuñu woon recruter ay joueurs africains. football bi du mujj lu ci loxo footballeur yi ñi nga xam ay Ahmed Ahmed kenn xamul kenn xamul fu ñu ñu bàyyi football bii parce que xamul ci dara lañ ci xam xamul jour bi rek temps récupération récupération bi mu war a am. xamul joueur bi lii xamul nangam football africain Afrique dafa métti tàngoor wala ay seddaay yow déggoo proverbe bi nga xam ne sénégalais yi wala africains yi ñu ngi koy wax léegi-léegi ñu def ko proverbe yaakaar lu rëy la te du rëy ci kanamu européen boo ko waxoon mooy qu'il pleuve qu'il neige damay def nangam qu'il pleuve qu'il neige damay def nangam ñoom xamul loolu qu'il pleuve qu'il neige les tubaab dañuy dañuy football dañuy def leneen ñun nag ñun nag il faut que lan mooy day taw Cameroun neige xanaa moo gën a garaaw Cameroun loolu excuse la maanaam yàlla ma yàlla baal mu ngi noonu daal ñuy jéej ñuy lel di kaf daal moo daal ba ci suñu fédération sénégalaise bi sax daala loon xamu ci ko mosuno football bëgg ñëw tey sonal nit ñi ci affaire ay organisation yu kenn xamul loolu kese la. yi Hann mën nañu am yaakaar jouer nawetaan déwén ci seen stade. ak budget bu vingt 484 million liggéeyu stade municipal bu Hann Bel-Air tàmbaliwaat na depuis ay fan. ginnaaw bi ñu lancé ñaari yoon boobule marché mairie bu Hann Bel-Air mujjee naa jébbal travaux yi société italienne bii di Ventilleri ginnaaw bi leen ARMP joxe dëgg ci kaw.

A, ah, mwen nan teknisyen la, mwen doun mwen dougou tiyoy. Mwen doun mwen dougou tiyoy, kanyan mwen mwen am stat bi. An tou kada ligye bi gisnen genne komansen la. Denye nyan yal ligye bi diyak ti djamak salam. Le yam sonodal mwen ligye bi tegou tiyon. Bah, koufou dougou gisnen komine bi. Se la premier fwa ou Senegal. Un komine di finanse gazon sintetik a se nivou la. 484 milyon. Louvi gise etan mwen kodef. Nou tak sou nye digi 2 an def loulou. loolu solo c'est la première fois te contrairement à ce que les gens disent ëpp ñu fi xaalis ce n'est pas vrai loolu aussi amul mais question de volonté la bëgg suñu jeunes yi di dem di di di di di dem Pikine di dem Iba Mar ak tous les risques que cela comporte ñu yem fii te ensuite même bu ñu ko defaloon du problème parce que xam lu tax fii ñaata ñaata commune ñoo fi am stade ñaata nañ ma ko wax nañ ma ko wax te stade bi gis ngeen du du gazon bi rek gis logement le bloc administratif a été refait yokk nañ gradin stade bi ñi fa dugg dañ n'importe où dem n'importe où gis pour le public ci plusieurs box te pareeguñu am na travaux yu fa marché pour que vraiment ñu am benn stade bu norme boo doomu jouer fii di leen jaajëfal mbokki internautes yi ci teewlu bi dileen leen jox rendez-vous dimanche prochain suñu beneen journal de la semaine